li ñu fi dajalee nag mooy suñu projet bu ñuy wax projet agro alimentaire de ASER boo xam ne ñu ngi ko créé le 17 9 2015 monsieur le président de la république financé ko jaarale ko ci DER mu toll ci 301 millions 412 mille 50 francs pour 70 hectares yu ñu am fële ci vallée du fleuve Sénégal mu toll ci 25 euh, kilomètres de Saint-Louis projet bi mi ngi démarré février 2019 dem nañ phase 1 bi def nañ travaux de terrain yi aménagé nañ 70 hectares pour mu war jël lu toll ci 529 marchands ambulants ak ñoo xam ne dañ leen dëgër piroon ci marché yi bi ñuy defar projet bi ak ñoo xam ne dañ leen bindoon ñu waroon bénéficier Prodac bi ñu commencé projet bi nag jënd nañu ay matériel lu toll ci 179 millions muy benn moissonneuse batteuse benn tracteur ak yeneen accessoires yoo xam ne jënd nañ ko pour commencer projet bi mais phase 2 bi bi ñu ci tollee dafa am certain ci bureau bi ku ñuy wax ma code sàll ak Babacar Touré bu ñëw doon piloté phase 2 bi mais phase 2 bi bi ñu ko piloté ba toll ci heure bilan bi nangu ñu def bilan bi ñu bañee def bilan dem nañ saisir la DER bi nga xam ne mooy suñu interlocuteur DER yabal nay auditeur ñëw nañu audité fekk nañ ay matériels yu bari yoo xam ne jaay nañ ko fa fekk nañ tamit contrat yi ñu amoon mu nekk ay contrat yoo xam ne dañ ko liggéey ak compagnie agricole Saint-Louis Sénégal mu toll ci ay millions yu bari fekk nañ ne contrat yooyu changé nañ ko ci compte banque bi mu waroon a dem muy compte entreprise bi def ko seen compte personnel boobu ba léegi nag ñu ngi topp DER sa fait plus de cinq mois ñu ne ñu rapport bi pare nag génn na jox nañ ko procureur ak gouverneur de Saint-Louis ak madame le sous-préfet madame le préfet bu Saint-Louis mais membres yi responsable yi ne mënatuñu xaar parce que du ñu nangu aussi lu toll ci 529 marchands ambulants président am programme muy autosuffisance alimentaire ci PSE bi jël dossier bi en mai recevoir ñu audience ñu jox ko ko mu financé ko ci autour de 301 millions benn nit bu ñuy wax Macodou Sall ak Babacar Touré bloqué nit ñi renversé suñu xaalis parce que am nañ ci ay preuve li ñuy wax dañ ci am ay preuve noir sur blanc parce que ñun ñoo monté projet bi ñoo nekkoon ci phase 1 bi Moustapha Mbaye moo nekk sama moom mooy trésorier bi man Sibédou Diakhaté man maay secrétaire général bi maintenant li ñuy demande mooy DER nee nañ leen may tuuti ñu def seen rapport rapport bi pare na jox nañ ko gouverneur gouverneur mën ñu commencé enquête loolu naam dina am par A li ñuy la wax di interpeller le chef de l' état ndax xam nañ marchand ambulant yi waroon bénéficier wu ci projet boobu demuñu liggéey ci projet boobu booba ba léegi ñi ngi xaar ca mënatuñu xaar d'accord ñu tamit machines yi continué nekk ci loxo ñoo xam ne dañu leen dañu leen topp auditer leen ba gis ne dañu jaay ay matériels yoo xam ne GIE bi ñoo ko moom ñu jaay ko ci amuñu ci avalu GIE bi woo nañ leen pour ñu ñëw rendre compte nangu ñu rendre compte GIE bi ci boppam def na ay plainte dem déposer ko mais mënuñu jiitu suñu interlocuteur plainte bi ñu ko déposé procureur jël na document bi imputé ko waa bt waa brigade territoriale bu Saint-Louis enquête yi war na démarrer mais li ñu mënul xaar mooy membre yi nga xam ne ñoom ci seen tour la ñu leen la ñu financement bi mu nekk 301 millions ci base de données boo xam ne 529 personnes ñoo ci nekk ku ci nekk sa tour sa sant sa numéro carte d'identité ñooñu ñoo taxaw ne mënatuñu xaar responsable yooyu ñoo fi daje ñi ngi interpellé chef de l'État yi nga xam ne ñoo yor dossier ñu jël dossier bi jox ko procureur de la procureur de tribunal grande instance bu Saint-Louis nu mu gën a gaawee ñi nga xam ne dañu renversé xaalis ñu topp leen ñu indi xaalis bi soit ñu yóbbu leen fi ñu leen fi mbaxana doone benn ñu yóbbu leen fi ñu leen war a yóbbu ñi nga xam ne ñooy bénéficiaires yi ñu ngi demandé aussi DER mu organiser benn assemblée générale élective nu mu gën a gaawee ñu renouveler bureau yi taxawal comité de gestion yi ñu taxawaloon nit ñu dem liggéey yi ci jàmm ak salaam parce que loolu rek mooy bitu projet bi ca lool moo taxoon président financé projet bi. li ko li ko indi mooy ay déguerpissement yoo xamante ni dafa amoon ci au niveau de Dakar ba nga xamante ni nit ñi amatuñ dara luñ jàpp ñu taxaw tënk projet boobu ni projet bi mooy. projet bi nga xamante ni tey mën na ci génne les marchands ambulants yi nga xamante ni tey dañuy nekk au niveau de Dakar bi loolu amee ñaari nit ak ñetti nit ñëw bëgg a bénéfice euh, projet boobu loolu moom gaa duñ ko d'accord léegi nag li ñu ciy dolli rek mooy euh, dañuy euh, interpeller le président de la république ak DER xamal leen ni leen am nañ nu mu tudd phase B boo xamante ni tey buñ ci àggee. fii ak màggal bu fekkee ni li nga xamante ni moom la ñuy réclamer li eh, yàlla dogal na defuñu ko ñun am nañ beneen plan B boo xamante ni incha allah jamono boobu buñ ci àggee dinañ wàcc ñun eh, def loolu nga xamante ni mooy eh, plan B bi. non non plan B bi plan B moom c' est plan B bu ñu ci àggee ñun ñun li ñu war a def xam nañ ko ci dinañ ko def moo tax ñuy interpeller directement président de la république lii mu gaaw ci dugal loxoom ba li nga xamante ni moom lañ ci soxla ñun. nga xamante ni ñooy les bénéficiaires bu boobaa ñu am ko benn tamit mënatuñ d'accord machines yi nga xamante ni tey dañu nekk ci àll bi di liggéey ay ñaari nit nekk foofu noonu nga xamante ni dañu détourné suñu xaalis ñu continuer machines yooyu di nekk ci seen loxo di liggéey di leen verser kooku tamit mënatuñ ci d'accord kon dañ ciy interpréter euh, que machines yooyu nañ ko nañ leen téye ba li nga xamante ni tey moom lañ war a lijjanti ñu lijjanti ko ba pare ñu continuer machines yi mën a nekk ci loxo mbooloo mi nga xamante ni tey ñoo taxoon projet bi jóg.